mbokki internet yi ñu bàyyi xel fii ci Info 7 TV ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar ñu daal di ñëw rek wax ci xabaar bile ci urgent ab xabaar bu tiis moo fi daal di yegg ci léegi muy ab accident bu métti bu méttee métti boo xam ne am na fële ca yoonu fi nga xam ne moo di ngaay ak fële di piir rawatina fu tolloog dëkk bile di jamagaay foofe daal la ci accident amee niki tey jile ci ngoon gi soriwul dara sax fi nga xam ne moom mooy Tiwaawan ndax diggam ak Tiwaawan tollu na ci fukki kilomètre ak juróom-ñett accident boobu daal métti lool la def dox ci benn bis ak benn parado ginnaaw nag accident boobu daal jamono ji ju ñu xamal ne am nañ ci ñàkk seen bakkan ñu bëree bëri jëlee ci ay gaañu gaañu jamono ngir rawale ñi nga xam ne ñoom ñoo sa ñàkk seen bakkan ak itam ñi sa jëlee ay gaañu gaañu yóbbu leen ci bërëb bu fajukaay nekk fële ca diwaan bu ngaay ak fa nga xam ne moo di piir ba ca tiwaawan muy accident boo xam ne nag bu métti la bu métti métti am niki tey fi nga xamante ni moom mooy diggante dëkk bile di ngaay ak fi nga xamante ni moo di piir rawatina fataloog dëkk bile di jamagay muy accident boo xam ne nag métti lool la def ngeen gisee bis boobee na mu yàqoo dajeeg benn oto boo xamante ni daal jamono ji ñoom itam ñoo daal di amal accident boobee muy accident bu méttee métti lool ba jéggi dayo jamono ji nag lu tolloog juróom benn ci ay ambulance ñu nga ca bërëb boobee ngir rek daal di rawale ñi nga xam ne nii ñoo si jëlee ay gaañu-gaañu ñu si ñàkk seen bakkan ñu daal di leen yóbbu ca margo hôpitaux yi féetee foofee muy accident bu métti boo xam ne am na ki tey jëlee ci dimanche gi fële sa diggante ngaay ak dëkk bile di piir fu tolloog dëkk bii di jamagay accident boobu nag dinañ ko topp si siwaat si ni mu gën a yaatoo fii ci Info 7 TV kon mbokk yi wéy leen rek di abonné di partagé di bés lii di cloche notification bi lépp luy xabaar ci biir ak biti réew di ngeen ko am fii ci Info 7 TV